ñu wax ne ñun dañoo am suñuy membre fondateur u coalition citoyenne boo xam ñu ngi ci kaso bi ci jaay doole ndax ñun ñii sax ku ci mel ni euh, nitu tëgg nga xam ni euh, euh, Abdou Karim Gueye moo koy jiite moom it nekk membre fondateur bu coalition citoyenne bi ñun jaay nañ ñu fi doole ba téye ñu fi en garde à vue ci loo xam ne dañoo taxaw rek di manifester ni dañuy dem manifester parce que préfet Dakar amul droit tere benn manifestation ci réew mi parce que constitution moo maye ku bëgg a manifester nga manifester loolu il faut xam ko ñun demandé wuñ ko ba mu ñuy tere ñun dañ koo yëgal mooy déclaration de manifestation lañ def dem yëgal ko ko muy jaay doole kon ni ma ko waxee nekk ci mbedd ndakaar yi di lambari lambar yi loolu mooy dëgg mais bu ñu waxalee yàlla amul droit tere parce que constitution moo nu may ñun dañ koy yëgal rôle lu préfet Dakar. du nekk ci mbedd yi di def euh, maintien de l'ordre loolu jàng ko fenn loolu du rôlam moom rôlam mooy ni euh, euh, ni force de sécurité yi lii laa décidé ñoom ñu dogal lëm décidé bu dee dafa bëgg ñu encadrer benn manifestation ñu dem encadrel ko ko bu dee dañ leen bu mu fi amee te loolu du woon yoon mu am ci suñu réew parce que suñu constitution moo nu ko may mais même fekkente ne du yoon sax même buy jalgati sax da leen a war a xam dem leen jalgati ji waaye moom day toog bureau parce que bu teree nit ñi ñu manifester loolu jalgati yoonu réew mi la kenn amu ci droit kon nag ñoom ñooñu nga xam ne suñ ñaari camarade la muy une personnalité indépendante muy Assane Diouf nga xam dafa ñëw bi ñu créé coalition mu ñëw fekk suñu réunion ni moom bokk na ci en tant que personnalité indépendante mi ngi ci kaso bi ci jaay doole moom Assane Diouf beneen bi mooy euh, mi ngi ci kaso bi ci jaay doole moom it deful dara détention préventive lañ ko def dem fekk ko këram fanaan buntu këram pour pour pour koo jàpp ci fajar gi pour mu rëcc ku toog sa kër di nelaw ñu ñëw jël si la ciy caaxaan donc loolu lañ def Assane Diouf loolu lañ def Guy Marius Sagna te kenn mënta nangu loolu ci réew mi muy continuer dëgg mooy tax Sénégal dem ca kanam ñun nag li tax ñu teg suñu coalition bi ginnaaw bi ma leeralee moom moom président Ousmane leeral na ko man leeral naa ko bokkuma Pastef yoruma carte Pastef xawma siège Pastef fu mu nekk mosuma dem bureau mosul ñëw sama bureau c'est important ñu leeral loolu benn yoon lañ mos a toog boo xam dañoo waxtaan c'était presque cinq ans ci ginnaaw man ak moom ak El ñu toog waxtaan entre ay jeunes yoo xam ni seen réew soxal na leen ca la waxee moom ni mi ngi mi ngi doog a jot récépissé parti ñu waxtaan fa sax ba ma gis ni ñun ñaar ñoo bokk génnandoo université Gaston Berger démb la ma am ku ne ma pourtant nekkandoo ngeen fa au moins une année maa ko jiitu nag maay magam mhm. mais mu ne ma au moins defandoo ngeen fa une année académique à l'université Gaston Berger mm. mais boobu maa moom xamante université bi ñuy toog man ak moom di waxtaan it dañ doon waxtaan ci mbirum réew mi ca la ma annoncé sax livre am bi mu njëkk a bind mm. ne ma dootul yàgg dana génn xam naa sax boo moytuwul fa lañ may dàqe ndeke duñ ko dàq ci lool ci leneen lañ koy dàq mm. jaay ko doole ci loo xam ni li mu doon wax Sénégal yëpp gis ko ni site boo mënoon dem ci gouvernement bi da fay gis li mu doon dénoncé amul dara lu mu inventé ñu tuumaal ko ni ko yow da ngay génn ay secret yoo xam ni sa profession ko amee ala ko de loolu man mii mënoon naa ko def fekkoon dem naa ci site gouvernement bi rek gëstu ko parce que ma nga foofu lépp lu ñu vérifié la ñun parce que ñun du ñu jay kenn président Ousmane Sonko su nekkoon ci dul dëgg man dàmbu ci ñi ma xam xam nañ du ma ànd ci dul dëgg lii ñuy def it defuñu ko pour di ko jàppale mais danoo jàppale dëgg. dëgg gi nag féete ak moom lii rek la ñun jàppalewuñ ko en tant que moom Ousmane Sonko mais danoo jàppale dëgg ñun la coalition citoyenne le peuple danoo xool ni lii nu ko lii nu ko teg ci jaay doole la ñu jàppale dëgg leeral nag lu ci ne parce que lu ci ne ci ñun luñ ci wax dañ koo tegal ay firnde yu leer nañ ni liy complot bu leer nañ la. léegi nag loolu la ñuy yaakaar ñun dañuy jàppale Ousmane président Ousmane Sonko alors que ñun jàppale wuñ ko ñun dañoo jàppale dëgg rek. dëgg nag wax dëgg yàlla bu xasee jib képp comme mu arrangé wul da ngay xoolaat sa bopp xam ne yow yaa newul ci dëgg parce que dëgg rek mooy mujj te ku gis mbir mi ni muy demee lépp luñ ci yëkkati rek da ngay gis ni gaañ daanu nañ. même ki ci nday mbill gi nga xam moom moo indi coow li yëpp moom bi nee na la mu doon tuumaale tege na ko nee moo ko wax ñëpp yi dégg ci discours ni pare na ci. waaye nag ji na na nekk ci complot bi moom it ñu koy wax loo xam pour yàq deru nit ñi il faut qu'on soit sérieux loolu moo tax ñuy leer ni encore une fois man comme nii mu ko waxee jour boobu ñu toogoon y'a cinq ans ou six ans ñuy waxtaan ci mbirum réew mi muy yore ay projet am ni teg na parti am na récépissé mi et cetera loolu la boobu lañ mos a daje beneen bi mooy bi ñu ko jaayee doole à la fonction publique dem dàq ko dàq boo am dara jaaru ci daarool jaar ci yoon dul jaay doole man nag en tant que syndicaliste du ma gis ñuy dàq liggéeykat boom dañ koo jaay doole ma ñëw duma ma taxaw ci wetam keroog jour boobu laa mos a demaat ci activité bu Pastef def dem ci hôtel Feto lañ ko doon defee. ma ñëw taxaw def sama déclaration wax ne jaay doole la nañ ko dàqe dara jaar ci yoon. beneen ba mooy bi ñu xalif généraux euh, xalif général des Mourides woowe waxee ni dafa soxla ñi nga xam ñoo ngi yëngatu ci mbir mi. sama coalition ma dem fa au nom de la coalition man ak Mansour Mboup ñu dem tase faawaat ak moom parce que moom it bokk na ci ñi nga xam moom lañ convié woon ak ci réunion boobu mooy euh, le vendredi il y jours donc ci réunion boobu la ñu xalif émissaire xalif bi sëñ bas euh, Mbacke Poroxaan wax ni xalif général des Mourides nee na ngeen teg lépp ci suuf ñu wis ci ndox mu sedd parce que loolu moo gën ci Sénégal moo gën ci réew ñaan na leen ko nag may leen ko su ngeen ko ko mayee dana dem ñaan beneen boor bi muy président de la république ak ñem ñem àndal ñu séq mbir mii boo ko defee parce que dossier bii comme je le dis et de façon très courageuse ci dëgg laa ko teg mooy man tuddewuma ko dossier Ousmane Sonko Adji Sarr mais moi je l'appelle le dossier Ousmane Sonko Macky Sall parce que c'est un dossier boo xam si politique bu ñëpp xam ci ñi ñemee wax dëgg c'est un dossier politique donc man loolu laa gëm ñun coalition bi tam loolu lañ gëm loolu nag bi mu ñu ko ñaanee ni dañoo bëgg ngeen teg lépp ci suuf ndax moo gën ci Sénégal moo gën ci yën ñu may ko mu ne nag moom dina jël lépp dem waxtaan ceeg ñam war a waxtaanal pour lépp sedd ñu may ko ko mu ne ñoom buñ ko mayul dina yëgal Sénégal gépp ne mayuñu ko ñoo ngi yaakaar nag ku bëgg intere Sénégal fitna bi fi amoon ba fukki barkan ak ñeent rot ci kenn wëratul ñaan mu am ci Sénégal te ñu ko provoqué ñun xam nañ leen parce que damay wax toujours ci samay sotti yi may def ne bu ñu waxee rek bi cëpp solo mooy yaa ngi convoqué nit ki ne ko da ngay dem wuy ji huit juge huitième cabinet mu ànd ak ay avocat am ak ay nitam ñu koy ñu koy ñu koy gunge ay ay jagañaaleem di ko gunge nga ne ko du ngeen jaar fii wii yoon wee wee yoon ngay jaar provoqué ko tas marche bi euh, tas euh, cortège bi nga xam ñoom defuñu woon dara sànniwuñ xeer saagawuñ defuñ dara dañoo ànd ak seen leader bu nu woo looloo fi mos a am man bi may nekk étudiant booba à ñun dañoo faawoon Ablaye ba mu ko daan woo ab Diouf bu ko daan woo ñun ñëpp ko daan dar ànd ak moom point e ba tribunal mais ab Diouf toog ca biram di ko muñ ñuy def fukki waxtoog juróom fukki waxtu ak ñeent ab Diouf di muñ xol bi jeex mu koy muñ mais président Macky Sall ne moom du muñ gis président waa Ousmane Sonko ne ko doo jaar buntu université pour étudiants yi ba bàbbee ko ànd ak moom loolu la ko doon xañ mais loolu nag dafa am galgal bu ci am parce que ñoom bi ñu daggee cortège bi ci digg tali bi ñëpp di ko gis préfet Dakar ne rëcc ca digg ca digg ba bañ defee loolu danoo jël président Ousmane Sonko yóbbu ko à la section de recherche lu tax yóbbuwuñ ko directement ci juge yi seen cabinet de loolu ko taxoon a jóg pour won leen ni tappale yi dafa bari booba nag man jàpp naa ne la yàq mbir mi mooy dañoo yaakaaroon ne fam taxawoon ne demul foofu lay taxaw mais bam ne samay kilifa ñaan nañ sama sëriñ ñaan na ma samay nit ñaan nañ ma certainement ay avocat am digal nañ ko mu ne léegi damay dem naam xam naa ne ñee may dem wuti jaay doole la ñuy def mais yoon taxu leen a mais loolaa yàq plan ba kon nag man jàpp naa ni coow lu fi am Sénégal looloo ko indi maanaam loolu bokk na ci li indi coow ci réew mi kon nag ñun duñ fi nekk di wër-wëral ñun leen jàpp mooy ñun coalition citoyenne ay kuréel lañ yoo xam ni kenn bokk ci Pastef ça c'est important pour nit ñi xam ko ñun dañoo taxaw di xeex bu réew mi parce que ñun ñi nga xam ni ñun ñooy société civile suñu rôle mooy ñu encadrer le processus démocratique ba nga xam ni dañuy encadrer les libertés ñun suñ ñun nous sommes ñun ñun loolu mooy suñu rôle maanaam fexe ba réew mi duñ fi jaay doole kenn fexe ba réew mi élection bu fi amee mu jaar yoon duñu boddi kenn ku ci war a bokk fexe ba képp ki nga xam ni eh, dangaa am àq ak yelleef ci réew mi ñu jox la ko loolu mooy rôle société civile maintenant na ñun comme ni nga ko waxee président Ousmane ñun kenn duñu terroriser naan ñu voilà yow Dame Mbodj secrétaire général de syndicat nga yamal ci njàng mi rek bul wax ci leneen yow médecin nga yamal rek ci faj say mala yow marabu nga yow nekkal rek di wax waxu diine bul wax leneen léegi bu ko defee dinu nu diviser bu ko defee dun booloo pour intérêt Sénégal man loolu kenn du ma terroriser ci loolu dama nekk un citoyen sénégalais lépp lu xew ci réew mi intéressé na je ne suis pas partisan nag parce que man samay texte syndicat moo may tere far far ci tel parti dem jël kartam di dem ci réunion loolu dañ ma koy tere terewuñ ko nag samay militant mais man awma droit def loolu ça ne veut pas dire que duma am droit di wax sama xalaat ci réew mi ni muy doxee moi je suis pas partisan mais je suis éminemment politique tout ce qui se passe dans ce pays m'intéresse loolu il faut Sénégal yëpp xam ko kon nag comme xam naa loolu man te ñun sunu rôle mooy encadrer les libertés et la marche démocratique du pays loolu moom moo si am depuis 1960 ak léegi au moins ci li ma jàpp ci ay leaders yoo xam xam naa leen ci mbirum njàng meeg feneen ak taxaw di xeex pour réew mi jaar yoon man ci loolu laa nekk nekkuma ci leneen léegi nag lii nga xam ne moo am ñun li ñu bëgg Sénégalais yëpp xam ko mooy jaay doole baaxul ci réew noo nekk ni man maay buur ci réew mi te ñun faluñu la woon buur dañ laa faloon président de la république moom ay institutions yu ko encadré am ay loi ay règlement yu ko encadré nga teg ko teg a nële di jaay doole kooku kenn mënu ko fee loolu moo tax ñuy leeral ne ñun président Ousmane Sonko li ñu gëm. mooy jaay doole gi ñu doon def sa yeneen na moroom yu doon xëccoo réew mi rek lañ lañ lañ lañ lañ jublu ci yow amul leneen maanaam damay nekk ci réew mi maa ëpp doole ca làmb ji waaye du ma bëreeg ku ma neexul maay seet ku ma neex moom laay bëreet loolu mënta ne soo ëppee doole ba wane ne yow yaay fañ-fañ da ngay ñeme kon ñépp nag mais nag maa fi ëpp doole waaye kii nañ ma ko dindil kee nañ ma ko dindil kee nañ ma ko dindil bu ñu ba mu des fi nga desee yaawu jàll ne yaa fi mën loolu mënta nekk làmb ji ku ci mën dangay ngay ñame mbër yu mag yi ñame mbër yu ndaw yi léegi nag liy problème mooy bëgg a seppi mbër yu mag yi ci biir làmb ji loolu lañ dul nangu ñun ñun suñu rôle ñun société civile et je lance un appel à toutes les organisations de la société civile ni leen gis nga bu ñu seetaanee ba réew mi yàqu ñun suñu musiba la ñun gouvernance bu jaar yoon ci réew mi ba lépp jaar yoon lépp ñoŋ suñu intérêt la ñun dañ dañ dañ koy salfaañe waa léegi bu ëllëgee bu ñu songee suñ droit de grève kon bu ñu sénégalais yi ne bu ñu dee grève pour woo sénégalais est-ce daan ñu fekk si loolu moo tax ñu war a xam ni réew mi ku fi nekk amul dara loo xam dafiy nekk te sa yoon nekku ci bu réew mi yàqoo ñun jàngalekat yi bu ëllëgee ñun ñoo ci njëkk ñu ñoo ci njëkk a patir moo tax ñun dañoo war a fexe ba réew mi jaar yoon c'est la même chose ak médecins yi c'est la même chose ak tous les corps de ñu taxaw jaarale mbir mi yoon man bërki démb rek recevoir naa les les les euh, euh, artisans yi nga xam si dañu des quatre régions Diourbel euh, Kaolack Kaffrine ak euh, Fatick ñu ñëw seet si ma pour di ma exposer li nga xam ni moom la mise de de de l'artisanat wax ci lu loo xam bokkul dara ak li am dara amu ci loolu dinaa def sax d'ailleurs ay sorties pour leeral ko sénégalais yi que li ñuy wax ci parce que ñoom dañ ne li ñuy dégg euh, Dame Diop di ko ak le ministre de l'artisanat ñu ne li ñuy wax ñoom ñaan ñëpp dara dë dëppoo ci ak li nga xam mooy dëgg. ñu ne ñoom financement yi ñu wax amu ci benn boo xam ne respecté nañ ko li ñu lim ci ay milliards sénégalais yi ñu ngi leen koy wax ñoom artisans yi ñoo ko wax du samay wax ñu ne lim yin fi limagun yépp amu ci benn ba ci bu mujj bi Covid bi 2 milliards yin lim ak 5 milliards muy 7 milliards ñu ne amul benn artisan bu ñu ko jox. luñ lim la sénégalais yi di ko dégg mais bu ñu demee ñoom seen biir ñu daal jël xaalis séddoo ko nekk ci lu leen neex loolu nag moo dal ci kaw président de la république moo tax jeunes yëpp génn ci manifestation yi comme ni ko ñëpp gisee set. l'élément déclencheur a été l'injustice bi ñu teg président Ousmane Sonko loolu mooy dëgg aussi injustice bi ñu teg président Ousmane Sonko moo déclenché crise bi mais dafa fekkoon sénégalais guuxal ko guuxal ko lu bari loo xam ne neexu leen ay jeunes yoo xam ne ñi ngi fii ñu war leen orienté à l'université orienté wuñu leen wala ñu dem université xàmmeetuñ lan mooy première année deuxième année troisième année yow xam nga ne ñun suñuy année da leer octobre nga ñëw inscrire bu juin jotee nga def say examen dem ñibbi sa lépp leer léegi nag année yi dañoo chevauché wu ba kenn xamul fan la année académique bi di démarré ak fu mu jeexee boo jëlee tamit artisan yi nee naa la léegi nii li ñu leen dig lépp ci lu ñu leen waroon a financé dara amu ci ay milliards ñu lim rek 30 milliards te ñoom amul benn artisan bu ñu financé loolu tamit mënta mënta jur jàmm bu ñu jëlee également yeneen secteur boo ci mën a jël da ngay gis jaay doole bu metti léegi nag looloo tax xale yi génn parce que xale yi nag gis nañ ni dem di mbëkk yi dootul solution bi mbëkk solution bi mooy taxu fii ci Sénégal xeex pour régler la problème di Sénégal parce que dem mbëkk yi régler le problème au Sénégal. donc vraiment euh, ñuy leeral daal ni ñun kontaan nañ ci li nga ñëw président Ousmane man dama ne woon sama gars yi la coalition ñun soxlawuñ sax recevoir président Ousmane Sonko parce que ñuy def defaluñ ko ko sunu bopp koy defal parce que réew mi ñoo ko bokk ñëpp. ku ci nekk nag ak boor bi nga ci féete mais ñun ñëpp ñoo bokk réew mi kon nag ñun comme leer nañu ñun ni li ñuy def nii Sénégal dong moo tax ñu koy def dëgg rek tax ñu koy def leneen taxul leneen lal ko parce que ñiy ruube mais président Macky Sall mais ñun société civile bu ñu daan xeex naan non au tripatouillage de la constitution donc ma nga fa woon à l'époque en 2010 2011 lu tax booba néewuñu génn leen ci yéen société civile ñun ñoo créé woon le casque CUSEMS à l'époque avant ñuy am ay problème suñu biir on avait créé le cadre de concertation de la société civile boole ko ànd ci ak ay politiciens ñuy taxaw di di nas di nocc di nas di nocc ba 2011 ba ni ñuy demee à la place publique ñun ñëpp di àndandoo ñun société civile ak ñoom te président Macky Sall ma nga foon yenn saa yi sax nargaat doom la doon ëndaale waa léegi lu fi lu fi soppeeku ba léegi ñun ñu bëgg ñu cee génn te booba lu ñu doon mooy président Abdoulaye Wade amul droit def ticket amul droit laal constitution bi mais ñun ca lañ nekkoon rek lañ nekk am ku naa ma yow rek dàmbuj li ngay def nii da ngaa bëgg bu Ousmane Sonko jëlee réew mi nga dem ànd ak moom xoola waxi ruube yooyu ñun ma ma Macky Sall bi mu jëlee réew mi est-ce que dem naa ca moom il faut que les gens soient sérieux man nag kenn du ma terroriser ñun li nu gëm mooy réew mi kenn moomu ko dañoo war a jaarale mbir mi yoon kon nag ñun leen jàpp mooy lan doon def en 2011 ba 23 juin le 22 juin man mii dàmbuj bokk naa ña doon Cheikh Tidiane Dièye mii tey moo yore ba di joxe parole bi Cheikh Tidiane Dièye moo yorewoon li sabat joxe parole man ñu inscrire woon naa ba avant ñu yegg ci man ca la xeexee démarré waaye Y en a ci salle bi ni ñu nañ leen génn xeex ak Abdoulaye ci place de l' parce que loolooy solution bi salle bi taj ñun ñu nekk ci euh, place de l' loolu moo doon la veille du 23 juin ñu ngi woon ci salle Daniel Brottier maa nga fa woon te amul benn rencontre buñ mës a def wala xeex buñ mës a def ci mbirum constitution boo am taxawuma fekkee ko waaw kon nag léegi ñoom du fi soppeeku. ñu nekk ñun ca saal ba lañ digg woon ca foofu yëpp dara lañ ci deful te ñoo yore ñoom ñoo yore nguur gi lañ waxoon teewoon ak ñun société civile dara lañ ci deful léegi nag ba noppi tey société civile taxawaat ñu non yéen vous êtes des politiciens encagoulés léegi génn leen seen yoon nekku ci mais suñu yoon a ngi ci biir parce que ñun suñu intérêt mooy réew mi nekk ci yoon jaar yoon lépp jaar yoon ci loolu lañ nekk te mosuñ cee jóg ba le 23 juin ñu xeex ba tey jii réew mi soppeeku te moom président Macky Sall bis benn ko Macky Sall di jaay doole man damay jàpp ni fa lay moom day fàtte li ko fal sénégalais bëggul injustice aujourd'hui soo xoolee l'élan populaire bi ànd ak président Ousmane Sonko c'est parce que dañ sénégalais noo gëm dañ ko jaay doole sénégalais bëggul kuy néewal nit doole te sénégalais yépp la leer gis nga la justice et rendue au nom du peuple justice c'est rendu au nom du peuple président Ousmane le peuple t'a déjà blanchi c'est ça la vérité loolu mooy dëgg la justice est rendue au nom du peuple ku ko wet journaliste yi may dégg mën nañoo def seen ñu ngi koy def sax seen i micro trottoir laaj sénégalais yi ñu ne lii gëmun ci dara gëm nañ ni ab politicien buy jaay doole moroom politicien am la waaw loolu mooy dëgg kon nag comme sénégalais yi ñoo moom réew mi te sénégalais yi ci boppam ñoom ñëpp d'ici et d'ailleurs de la jaspora ñoom ñëpp ñoo gëm ni jaay doole bi dafa war a dakk te jaay doole dong ak bëgg faagaagal koo xam ne yaakaar nga ni dalaa nar a wutu waa léegi kon kay mbir mi leer na li kenn mënu fee wax leneen dul lii maintenant nag comme ni ma koy waxe dangaa daanu ba ba ba ba ba jël bi leer nañ nga koy jéem a rafetal mais da ngay mujj ne lañar rek daanu ba ne lañar xam nga loolay problème bi léegi nag ñun bu ñu sañoon du fa àgg parce que comme chefs religieux yi ñaan nañ ñu teg lépp ci suuf suñ sañoon lépp daañ ko teg ci suuf ñu xam ne Sénégal lii fi jaar coup politique yàgg naa am maanaam mbëkkante ci politique yàgg na am Sénégal depuis toujours l'événement Euh, de de Senghor euh, Mamadou Dia ku ne gis na li fi xewoon Senghor taxaw ni Mamadou Dia da ko bëgg a coup d'état tuumaal ko coup d'état daal dem tëj ko kaso jaay ko doole te ñëpp xam nañ ni France moo lënkaloo ak sengoor ñu coup d'état Mamadou Dia par rapport au projet bi mu doon porté le président Ousmane Sonko ku gis keroog xale yi li ñuy wax xam nga ñu bëri ñu ngi dégg extra xale yi bi ñuy manifester koo ci déglu li muy wax danaan le président. euh, Ousmane Sonko symbolise l'espoir le président Ousmane Sonko symbolise l'espoir projet bi muy porté moo tax xale yi topp ci ginnaaw du jëmm Ousmane Sonko moo la intéressé mais li Ousmane Sonko di incarné li mu teg ci taabal ji ni bu ñëwee moom la bëgg a soppi réew mi looloo tax nit ñi am yaakaar ci moom te réew nag yaakaar dong la nag nit ñi dañuy am ci yow yaakaar léegi nag yaakaar googu fekkente ni moo gën ci Sénégal yàlla na ko Sénégal dund ñu loolu lañ gëm parce que réew mi ñun ñoo ko bokk léegi nag ñun dañuy dañuy sàkku ci président de la république ak euh, justice bi bii que nañ libéré sunu gars yi ñu téye ci kaso yi franchement lool dafa war arrêté ñu ngi exiger leur libération ñu libéré ñi nga xam ñoo ci gën a fés du ñoom kese mais ñu ci gën a fés mooy le camarade beneen bi mooy lii ñuy ruumandaat ci Ousmane Tounkara démb ñun coalition bi def nañ une déclaration envoyé nañ ko euh, les autorités américaines dinañ un euh, a demandé à ce que ñu déposer une demande d'audience auprès de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal pour ñu dem tamit jébbal ko suñu bataaxal rokk na ko Ousmane Tounkara mënuñoo gëmloo communauté internationale bi que c'est un terroriste Ousmane Tounkara n'est pas un terroriste Ousmane Tounkara du terroriste dafa toog États-Unis di xeex pour réewum pour réewum jëm ca comme ñun ñii ni koy defee Sénégal deful leneen maintenant nag nit mun na xalaat ne waroon na waxee nii ak waroon na waxee ne mais délit d'opinion bu mënoo ko cee basé pour wax ko ne nga yow terroriste c'est-à-dire nit mën na juum ci ñi mu waxe bu dee juum am na mais nag wax dëgg yàlla di profité ci ay situation pour naan kii naa ko taxé de terroriste pour andi ko ñu defoon Assane Diouf loolu la ñu wax ñun dem suñu déclaration wax nañ ko les les américaine ni leen Ousmane Tounkara liñ def Assane Diouf lañ ko bëgg a def dem jëli ko États-Unis andiwaat ko Sénégal jaay ko doole jiñ ko terroriste alors que ñoom ñoom ñooñu ko koy jiñ xam nañ ne Ousmane Tounkara du terroriste kon nag ñun la coalition nous restons solidaire ak Ousmane euh, Tounkara pour wax ni nañ bàyyi doomu jàmbur mu kon na liggéeyam ñu ñu ñu ñu bàyyi ko mu kon na liggéeyam moo gën ci ñoom gën ci Sénégal parce que doomu Sénégal fu mu mën a nekk rôle président la République mooy mu aar doomu Sénégal yi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi kon nag vraiment loolu aussi ñu ngi koy leeral ni dinañ ci taxaw taxawaay bi ñu ci war a taxaw ñun la coalition citoyenne en tant que nit koo xam ci ñun la bokk même bu fekkee bitim réew la nekk pour que ñu bàyyi ko bunduxataal boobu ñu koy def te Sénégal moo nekk ci ginnaaw di ko jéem a jiiñ terroriste et dégg nañ ministre de l'intérieur bi même sénégalais yi doon manifester fii mu tudde leen ay terroriste gis nañ fi tamit ministre des affaires étrangères dem ci télévision étrangère taxaw fa ni Sénégal la fa xew c' est des forces occultes du benn force occulte bu ñëw Sénégal sénégalais yi danoo ils en avaient marre de cette dictature ils en avaient marre de cette mauvaise gestion de nos ressources ils en avaient marre de ce pilotage à à vue à tous les niveaux sénégalais yi gis ni comme ni nu yoree réew mi baaxul ñuy muñ di muñ moytul sénégalais bu muñ lu yàgg sénégalais yi danoo guuxoon lu yàgg yàgg yàgg am occasion ñëpp génn léegi nag moo tax man pour man nañ fexe ba lii nga xam ne mooy sànkar si diggu sunum réew ñu yemale ko fi jàmm ne ñooy ñu teg réew mi ci yoon ñun nag ñu continuer di xeex pour les libertés di xeex pour processus électoral bi jaar yoon c'est important parce que réew tamit bu fekkee day dem compétition électorale nga man caa dem te wóolu wóoni day jaar yoon loolu baax kon jàpp nañ ne tamit liy jur jàmm mooy le processus électoral bi nga xam ne depuis l'inscription sur les listes ba jusqu'à la proclamation des lépp jaar yoon ñun loolu aussi ñun les organisations de la société civile loolu mooy suñu rôle pour ñu encadrer ko bu ñu paree nag ba lépp jaar yoon ñuy xëccoo réew mi dem xëccoo ñun loolu lañ gëm bu ko defee ñu ngi lay sant bu baax di wax ne la Ousmane daal kontaan nañ ci li nga ñëw euh, comme ni nga ko waxee ñun ñëpp ku ci nekk da nga ci am responsabilité pour réew mi jëm kanam euh, ñu ngi lay ñaax ci yoon wi nga taxaw pour réew mi parce que nag réew mi ku ci nekk am nga droit samp sa ndënd bu ñu fi jéem a faagaagal kenn d'ailleurs loolu moo tax ñun ñu demander à ce que ñin woon ci processus bi ñu delloo si leen ñi nga xam dañ leen a dindi woon ci jaay doole nga xam ne ñoom defuñu dara dañ leen a boddi woon ci élection yii ñu passé nan wut seeni pexe ba dugalaat leen ñu retrouver seen i droit pour mën a bokk ci compétition électorale bi parce que loolu mooy yoon réew mi mënoo fee nekk ba noppi ñu lay jaay doole ñin jaayoon doole nañ ñëwaat ñu ni jéem a jéem jaay doole tamit dañ teg lépp ci suuf bàyyi ñëpp ñu dem élection sénégalais yi ku ñu wóolu ñu jox la réew mi mais ñu am un processus encadré par la société civile ñun ñi nga xam ne faruñu bu ñu yem rek ci jour élection ñu ne kaay leen organiser ñu élection yi dama koy wax toujours sama gars yi man leen ñoom li ñuy naxe dafa yomb ñun société civile surtout ñun anciens bàyyi ba jour élection rek ñun la dem leen l' élection c' ñu impliqué ci jour scrutin bi kese xoolal la ñuy def dañ ñuy bàyyi ba jour scrutin bi ñu doog ñuy woo impliqué ñu léegi nag ñun d' accorduñ ci loolu li ñu d' accord mooy on doit impliqué dans tout le processus depuis l' inscription sur les listes jusqu'à la proclamation de résultats tout le processus le fichier électoral lépp jaar yoon bu ñu paree nag ñun ñu dem toogee nee bu lépp jaaree yoon ñëpp nag ñu ma bàyyi ñëpp ñu bëgg a nekk candidat ñu nekk candidat ñun suñu jaan wàcc na bu ko defee nag ñu ñëw toog seetaan bu ko defee ku sénégalais yi wóolu ñu jox la réew nga jiite ko ci jàmm ci intérêt Sénégal. ñun loolu mooy suñu ñun société civile te ci loolu la ñuy dee incha allah bu fekkente ne nag keneen ku comprendre neneen yow yaa comprendre noonu mais ñun ci loolu lañ nekk réew mi rek moo nu ñor leneen ñoruñu maintenant vraiment président Ousmane ñu ngi lay sant di la gërëm di la encourager parce que nag li nga dund nii metti na mais ñëpp xam nañ li ko lal mais li war a giifal sa xol mooy nga nekk ak sa waa réew ñëpp ni yow. leew lañ àndal ci lii nga xam mu ngay dund parce que gëm nañ dañ lay jaay doon loolu moom vraiment maa ngi la koy wax ne la lu mu metti metti metti war nga sant yàlla loolu parce que foo romb ci mbedd yi mu fees dell te am na ñoo xam bu ñu doon romb fii kenn du génn loolu nag wax dëgg yàlla àtte bu leer la donc na nga sant yàlla loolu ak lu la metti woon na nga ko fajoo ni sénégalais yi àndeek yow ci épreuve bi ngay dund wane ne jaay doole la amul lenn luñ ci gëm amul lenn loo xam ne ñoom gis nañ ni nekk lalu na ci dëgg et ñoom dañ lay jéem a jaay doole te ñoom peuple bi dinañ taxaw pour jaay doole boobu dina dakk parce que lii ñu doon jéem yëpp màbb na te yàlla subhaanahu wa taala yow ànd na ak yow man gëm naa loolu mooy lépp lu luñ ci jéem rek presque dafa yàqu amul luñ ci jéem loo xam ne yàquwul lépp du début à la fin boo xoolee lépp li nga xam ne moo nekk dans ce dossier c'est contre eux donc yow nag loolu war dëgg yàlla war nga koo sante comme ni nga ko daan sante nga santaat suñu borom xam ne yàlla rek moo fi nekk te yàlla rek mooy mujj te dëgg rek ay mujj